mbok julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seen mbok daara Abdoulaye Guèye moo leen di nuyu di leen ziare ci suba dimanche di di ñaan yalla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jàmm yalla def ñu dëgg dëgg jullit samal ñu suñu iman té rafetal ñu ko bëkk ak ñun. yóbbal tay bi macha allah dafa ñew di ñu jàngal lan moy amitié mu wax ni l'amitié est un peu comme un livre il y a des amis pour une page seulement d'autres pour un chapitre entier et puis il y a les vrais qui sont présents pour toute l'histoire nee na euh, amitié muy xaritoo nee na dafa mel ni benn livre rek xam nga livre boo demee di ko liir yenn saa yi nga liir ci loo xamante ni c'est une page benn page bu lëmb boo xamante ni benn ci histoire livre boobu moom lay nettali nee am na ñoo xam ni sa xaritoo ak ñoom it dafa mel ni rek euh, benn page noonu la ñuy toll ci nekk ngeen nekk maanaam nekkul lu yàgg de moom man ngeen a xaritoo tey bu déwénee buñ la lay laaj ñu nga ci ñooñ kooku de ba ma bàyyee yàgg na c'est parce que mom fofu la fasiyene won yamale xarit gi ndax xarit gi sincère won sincérité amu ci motax du meuna continuer man na débuter waye du dem motax mag mu bax ci rew mi da koy wax nan wa suhbatun li ghayri allah akhiruha inna lillah muni ànd suko yàlla lalul mujj ga mom ci inna lillah dong lay mujj waye muni wa suhbatun lillah nak akhiruha alhamdulillah muni ànd bu ko yàlla lalee mujj ga alhamdulillah lay jur kon ki nga xamantene àndul won ak yow ngir yàlla dafa amone ay calcul yu mu defone rek ba xaritou yow xarit ga du yàgg du bijaaw déedéet day jeex nee na dafa mel ni benn page rek ci livre mu ne am na ñoo xamante ni ñoom chapitre la ñooy gën a yàgg tuuti boo demee ci livre am na lu ñuy wax chapitre dañ naan livre bi ci misaal dix chapitre la chapitre bi mooy nim un bi day jëm mën na jël six page mën na jël sept page ça dépend ci volume livre bi ñu ni chapitre deux bi mën na jël lii ci ay page nee na am na ñoo xam ne xarit bi xarit ngeen xaritoo ay chapitre la mën na dem sax ay at mais comme am na lu nekkoon ca ginnaaw loo xamul woon bis dina ñëw rek doon tere deux ans trois ans cinq ans sept ans ça dépend yaa ngi nekkoon ci ay moment yoo xamante ni neexoon ngaa xaritool mu ànd ak yow ca loola nga defee ni kii kat yàlla keesee la la toppee waaye bis bu soppee ko amee ci yow nga xam ni foofu lay tëjee chapitre bi ñu ne la au revoir seeti keneen ndax moom xaritam xaritoom ni mu doon xaritoo ak yow foofu la ko yemale woon mu ne nag ginnaaw yooyu am na les vrais amis ñoo xamante ni ñoom dañuy doon ñu présent ci livre bi yëpp toute l'histoire di livre ñoom dañ ciy teew dañuy bokk ci commencement livre bi chapitre 1 ba livre ba jeex léppi livre bi da nga ciy dégg mooy ñooñu nga xam ne dañu ko ànd ak yow ngir yàlla muy neex muy ñuy ànd ak yow muy naqari ñuy ànd ak yow sa situation baax ndax bañ a baax lépp ñoom daal dañu ànd ak yow te yàlla rax yàlla rekk tax moo tax du ñu bàyyi moo tax yonent bi alayhi وقت wasalaam wax تجرم نيار ba ci juróom-ñaar ñi yàlla di keral bis bi nga xam ne ker du am lu dul keruk borom ba ñaar ñoo xam ne dañoo ànd أي yàlla bu اي àndee yàlla la bu ñuy tàqalikoo ci ay principe bu diine la ñuy tàqalikoo ñooñu de yàlla dina leen teg ci logem ba yàlla lan ci yàlla boole dëgëral suñu ànd ba mu mel noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ndax application gu indil waaw application gu bees tàkk Dog pic yang may Dog pic waaw